bi xam nañu ne euh, sur l'étendue du territoire national après le 14 le lendemain du 14. Mhm. bi ñu bëgg amal seen meeting dinañu am des séries de manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Mm-hmm. pour que déjà les détenus politiques ñu libéré mais également que la lumière soit faite sur ces 14 morts. gis nga que la lumière soit faite warul sax euh, mobiliser rek les familles man dama jàpp ne dafa war mobiliser tous les défenseurs des droits de l'homme parce que li tax mooy euh, leçon yi ñu ciy tiré. day tax bu ëllëgee xëy na du amati loolu moo tax impunité baaxul mhm. gis nga su ma jugoon léegi fëgg Georges mi am mbéj fii ci plateau bi kenn sanctionné wu ma kenn defu ma dara su ëllëgee keneen dina ko def donc moo tax euh, la sanction baax euh, ci yu mel nii te awa dafa may fàttali benn procès boo xam ne xam naa ne fekke nga ko woon bi ñu rayee l' étudiant Balla Gaye mhm. mais au moins au moins au moins régime Ablaye Wade mhm. am na alkaati bu ñu ci jàppoon muy Thiendella Ndiaye ñu ba dem procès. waaw ñu dem procès ñëpp ñëw taxaw maa ngi fàttaliku procès bi ñu ko defee ba pare papay Balla Gaye bi mu ñëwee taxaw ñu laaj ko ne ko ñaata ngay laaj ci ndàmpaay. mu ne moom dereetu doomam du ko jaay du laaj. Mhm. keroog dañu mujj doomi jigéen yi la ñu woo. ñu yóbbu ko ak ci benn ruq ak moom pour wax ak moom pour mu nangu wax ne ñaata lañ koy dàmpe mhm. te bi ñëwaatee mu taxawaat ci kanamu àttekat bi dafa bañ ne du wax ñaata lañ koy ñaata lañ koy àttee ba keroog les avocats ñu obligé ne nañ bàyyi ñoom ñu ñu jéem a gérer cette situation mhm. donc l'un et pourtant l'un n'exclut pas l'autre tey jii on peut faire la on doit faire la lumière ba mu leer ba pare ñu indemniser leen parce que da ngeen ñàkk mhm. mais li li bon mooy li awa wax sànq mooy d'accord euh, ne waa léegi comme ñun mën nañu ñu indemniser nan ñu jox ñu indemniser léegi kon su ko defee. on arrête on arrête on passe autre chose loolu mooy li jaaduwul donc encore une fois pour man gis nga xale yi nga xam ne ñoo ci faatu. dafa war a mobiliser ñëpp parce que xale yooyu mënoon nañoo bokk ci njabootu kenn ku nekk ci ñun. Mhm. ndax ju waxuma sax suñu njaboot moo na nekk ñun parce que ki nga xam ne dafa liggéey wàcc yor histoire am dawal ko bay dugg këram euh, euh, bakkanam yam fa mhm. ku ci nekk ci ñun ñii fan yi manifestation yooyu romb nga manifester romb fu ñuy taale pën ak fu ñuy sànnee xeer nga romb ko dem liggéey wala nga romb ko ñibbi sa kër mënoon dara mënoon la caa dal donc moo tax ça mobiliser tout le monde beneen bi mooy awa regarde tous ces jeunes gens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey ci prison yi mm, mm. nga xam ne sàccuñu agressé wuñu reyuñu violé wuñu kenn c'est des jeunes yoo xam ne peut-être am nañ ci droit xaw ma amuñ ci droit peut-être dépassé nañ les bornes wala dépassé wuñ les bornes mais en tout cas lenn dong lañ def mooy manifester comme ni ko Georges doon waxee sànq wala ñu yëkkati seen kàddu wala ñu bind loo xam ne dañoo jàpp ne waruñu koo bind pendant ce temps ay nit faat nañ ay nit ñi ngi dox seen soxla ci réew mi. Mhm. ay nit trafiqué nañ ay billets de banque sur euh, ay euh, des montants de plusieurs milliards ñi ngi dox seen soxla soxla ci ci ci euh, ci réew mi ay nit. wax nañ lu gën a garaaw foofu li nga xam ne moom la xale yooyu wax ñi ngi dox seen soxla ci réew mieux mieux bu ñu doon dox seen soxla sax nga yaakaar ne xëy na dañoo xamul fu ñu ne mais ils sont sur les plateaux de télévision on fait rien contre ces gens là mm. donc pour man ces xale yi ne ci euh, porter ce combat là amal manifester sur toute l'étendue du territoire au-delà du tey jàpp nga ne euh, boobu léegi ñoom ñu ngi porter des combats en en plus finir est-ce que bi pas dina prospérer avec euh, ñi nga xamante ne ñooy collectif bi ñu lënkaloo pour euh, mbir mi gën a am dayoo. ah waaw mais stratégie bu ñu jël yaakaar naa na am euh, na am euh, jeexital parce que nee nañ ñaari demande la ñu déposé benn bi fii si buntu Walfadjri mooy si terrain xaar yàlla beneen bi akapes bu parcelle buñ ci nangu ñu jël pour Dakar buñ si am rek jël <laughs> parce que dégg naa dégg naa Déthié di wax ñi il faut ñu leen di calculer parce que tam ñu bu ñu def déposé terrain xaar yàlla alors dañuy bàyyi ba la veille ñu ñëw indi ay ndaraan ñu voilà dañuy dañuy liggéey fii mënu leen fu leen mën <laughs> donc xam naa bu ñu bu ñu amulee bii am bële uh-huh. donc c'est tout à fait normal mm-hmm. Sénégal yëpp ñoo war a jóg quand même réclamer la justice parce que am ñoo xam ne si manifestation yi bul yaakaar ne ñuy ñu ñu ñu ñoo xam ne dañ si ñàkk seen bakkan yëpp c'est des manifestants du tout man dama si am suma expérience bopp en en 2011 boobu maa suma doom boo xam ne il a il avait même pas encore deux rond point croisement case bi Cambérène foofu. Mhm. bu may ñibbi Maris. mais jaamaarloo ak policiers yi man dama daw a daw. ak sa doom bi waaw tey ko mais dama dugg si ban ruq boo xam ne si biir marché marché. <laughs> Gueule Tapée bi mhm. mais buñ buñ ma gisoon may daw mënoon nañ ma téye ne ma manifestant laa fekk man sama bakkan laa doon. Mhm, te loolu day am si manifestation yi aussi. nit ñi am na ñoo xam ne da ngeen gis ñuy daw rek mais nekkuñu ay manifestant dañuy dawal dañuy rawal seen bakkan. ñii nga xam ne parce que. doo doo taxaw ñu lay sànni lakk man nga ne non man bokkuma si déet il faut nga daw boo dawee nee kuy daw si nga bokk hmm. parfois je crois faut gis nañ keroog euh, plateau balance ñoo xamante ne dañ leen jàpp fekk dañoo wàccoon di ñibbi ñu def kaso euh, une semaine de aussi awa ah gis nga xale yi xale yi mën a manifester dëgg-dëgg <laughs> alkaar du leen jege <laughs> euh, doo leen gis <laughs> sax Nous réitérons tout le temps notre soutien à Papa Ndiaye wax ne dinañ taxaw temb pour def suñu kéem kattan anam gañ ko mënee ngir mu nokki ngelawal feex mhm. il n'est pas seul là où il na xam ne ñu ngi ci ginnaawam ñu koy jaajëfal bu baax yow Ami Ndiaye Fall mhm. ci wuy si bi dinañ continuer di suivre combat bi foo leen ci tollu rek faites nous signe incha allah incha allah amul benn problème may mhm. wax ni que rek euh, yeneen famille yi nga xam ne ñoo des ñoom aussi ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw porter ji plainte muy ñi des mhm. parce que vraiment combat bi dafa nekk combat bu nga xamante ne du pour ñun kese parce que mhm. ñun suñu doom ñàkk nañ leen mais am na ay xale yu nga xam ne instant bi ñu ngi génn war a kaas seen droit te yaakaar naa droit la ci nit ki nga nekk ci sa réew nga gis lu la naqari nga génn manifester ko parce que réew mi dafa metti nañu xam ne réew mi dafa metti jeunesse bi liggéeyuñu xale yi